bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasiri ilxaq bilxaq alhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim allahuma ijcal ma tabaqa min ayaami shacbaana jaabiratan lilqulub saatiratan lilcuyub maaxiyatan lidunub مهرجة للكروب اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه اللهم بلغنا رمضان وأحينا بصحة وعافية للأبدان لا مفقودين آمين يا رب العالمين mbokk yu tedd yi ñoo leen di nuyu di leen ziar di ñaan suñu borom defaral ñu suñu zaahir ak suñu baatin te jotale ñu ci weer wu tedd bi nga xam ni mooy weeru koor weeru koor nag su jublu see jullit bi war na laaj boppam nan laa nan laa war a teeroo weeru koor kayfa astaqbilu ramadan sayiduna abdullah ibnu masud dañ ko laaj kayfa kuntum tastaqbiluuna ramadan nan ngeen daan teeroo weeru mu ne kenn ci ñun amuloon woon fit weeru koor di teru ci moom fekk mi ngi am benn mbañ ci xolom bu mu am contre mbokkam maana salaamatu sadr dënn bu mucc lañ daan teeroo weeru koor ñoom weeru koor rëy na ba nga xam ne ku ko dund boo ci génne ku texe rekk nga war a do moo tax ba si yonentu sallallahu alayhi wa sallam yéeg ci min baram ñu dégg ko mi ngi naan amin bi mu yéegee ci deuxième escalier yi waxaat amin yéeg ci ñetteel ba waxaat amin naaw ga saxaaba yi laaj ko yow yonantu sallallahu alayhi wa lan moo tax ngay wax amin amin amin yonentu na leen jaani jibrilu alayhi salaam fa qaala lii anfu abdin adraka ramadana fa lahu in lam yughfar lahu fa mata jibril la ma ñëwal ne ma ki torox dëgg-dëgg mooy kii ramadaan jot ci dundam ba jeex te fekk yàlla jéggalu ko wala yàlla na torox bakkanu ki jot ramadaan bam jeex te yàlla jéggalu ko mu ne bu ko yàlla jéggalul kañ la ko yàlla di jéggalati maanaam ku dund ramadan ba mu jeex te sama borom baalu la ban occasion moom nga war a mën a amati pour sama borom baal la weeru koor mbokk yi lu mët a préparé la bokk na ci yiñ koy waajalee ñaan saxaaba yi mag ñi bu weeru koor jublu si dañ daan ñaan allahuma barik lana fi rajaba wa shaabaana wa ballighna ramadan yow sama borom ñu ngi lay ñaan nga barkeelal ñu rajab barkeelal ñu shaabaan waaye may ñu ñu dund ba mën a woor weeru koor daan nañ préparé weeru juróom benni weer bu weesoo juróom benni weer ya ca topp yépp ñu ñaan yàlla mu nangul leen ko maanaa seen àdduna yépp weeru koor la woon waaw jar naa ñaan ndax bari na ñu woorandoo woon ñun daaw doon julleeg ñun ci jàkka yi tey ñu ngi ci biir suuf koo ci laajoon tey loo gën a bëgg mën naa am dana wax ne ñëwaat benn waxtu rekk ma màng ko ci weeru koor ngir ngëneel yu bari yi nekk ci koor kon nag jar na ñaan yegg ca jar na ñaan jot ko jar na ñaan am tawfiq ba mën ko wóor ñaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne mooy ngàndaayu jullit adduaau silaaxul mumini sama borom dana wax ne uduuni astajib lakum kon bu mu jubli si rek ñu foog ne dañ ko fekke bu ñu wóoroon ne dañ ko fekkee sax du tere ñu ñaan ndax nit yàlla yi dañuy wax ne axiru axwaali al aarifi seydna ibrahim alayhi salaam ci njëlbeenam dafa jëloon léppam bàyyee yàlla ñu koy sànni ci safara jibril di ko laaj ndax soxla nga ndimbal mu ne ko oh, soxlawuma ko ci yow de ma ñaanal la sa borom mu dimbale la mu ne ko xam gim xam li ma nee doy na wëlis ma koy ñaan waaye boobu daf doon xale rek ci maarifatu ba matee yàlla yónni ko yónni doomam sant leen liggéey bu toll ni néegam bi nga xam ne moo ko moomal boppam wax leen niñ koy defee jox leen plan baag la ca ajoog matériel yaag yépp terewul ma ngay ñaan suñu boroom matalal ko projet boobule bim noppee it mi ngi ñaan yàlla nangul ko ko te loolu mooy wane mëtam mooy wane it ne ñaan ki ko taqoo mat dëgg lay junji ci xaqam kon nag nañu ñaan jot ko nañu ñaan mën koo xoor waaye nañu imaginer suñu bopp ñu nattale ne ñun ñooy jaam boobu nga xam ne ma nga ca biir bàmmeelam muy ñaan rek am chance ñëwaat dund benn waxtu ci weeru koor nañ nekk jaam yàlla dimbale nañu ba ñu ngi ci bëgg a yegg nañ ñaan yegg ca waaye buñ ca yeggee it nañ jàppu ne dañ ñoo jox beneen chance pour ñu ñëw fekkee si weeru koor ba lu ñu mën a màng ci yow ñu màng ko ci koor gi yóbbaale ko yowmal qiyaamati bokk na ni ñuy préparer koor loo mën ci woor ko ci Shaabaan nga woor ko ndax kuy dem compétition di entraîner dina ko dimbale ba mu mën a dëgër ac pour mën a compétir comme koor ñàkk lekk ak ñàkk naan la jar na nit ki walla jaadu na yell na muy bari lum koy def lu jiitu koor ngir mu mën ko miin di nga gis yonentu sallallahu alayhi wa sallam ndey aïchatu ni mosta hoor weer ba mat bu dul weeru koor waaye bu weesoo weeru koor it mosta woor ci benn weer lu toll ni lim daan woor ci baraxlu nee na daanaka daf daan wor baraxlu yépp ba Seydina Usaamatu seetloo ko bës ne ko li ngay woor ci baraxlu de doo ko woor ci weneen woo weer mu ne ko waaw dafa di weer wu màgg waaye nekk ci diggante ñaari weer yu màgg muy rajab ak ramadan ba ñu bari di ko sàggane te weer la wu nga xam ne ci la sama borom di resevoir jëfi jaami maanaam bu doon présentation annuelle mën nañ ko ko tuddee te loolu la ci weer wi lay ame mu ne ma bëgg sama jëf nag buñ koy yëgati mu jëm ci sama borom fekk maa ngi woor donk njëriñ yooyu weer wii ñu nekk di Shaaban woor ca am na ko waaye njëriñal entraîné suñu bopp ci koor mi ngi ci ni nga xamee ne noonu lañ bëggee ñuy woor alxemes di woor altine soo ko mënta def semaine bu ne it nga def ca loo mën ngir ne njubal yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa alihi wa woor nag bu jubli ñu préparé ko physiquement wante ñu préparé ko spirituellement ndax ñetti catégorie woorkat ñoo am am na koo xam ne dana bañ a lekk dana bañ a naan dana bañ a sëy waaye ca la yem kooku la yonentu di wax ne kooram du ca am lu dul xiif ak mar yàlla amu ca soxla ki nga xam ne kooram terewut ko wax ju bon terewu ko jëf ju bon mu ne yàlla amul ci moom soxla muy bàyyi lekkam di bàyyi naanam loolu la ñuy tuddee kooru Samba Surabali sawmul umum am na tamit lu ñoo tuddee sawmul xusuus mooy ki nga xam ni dana bañ a lekk dana bañ naan dana bañ a sëy dana moytu wax lu bon dana moytu jëf ju bon dana moytu yi nga xam ne tere nañ ko ci wàllu jëw ak rambaajak narak yu ni mel kooku la ñuy tuddee mul xusuus kooku de baax na lool waaye am na it mu xusuusil xusuus aw mu xaasatil xaasa mooy ki nga xam ne non seulement dina mettre frein ci ay cëram ba duñ jëf mbon ci ay euh, bëtam ba duñ xool mbon làmmiñam du wax mbon tànkam du jëm fu bon waaye dana mettre frein ci pensem ba nga xam ne xalaat yu suufee yu ñàkk fayda yi du ca dugg dana ko mm, tiye ba nga xam ne sax lu dul yàlla du ca nekk yal nañu yàlla defal koor googu te mooy koor gi nga xam ne mooy koor gi gën a am solo ñu préparé koor ak toroxlul yàlla xam ne ñu ngi dugg ci mbir moo xam ne mi ngi ñuy jàngal suñu suufe suñu ñàkk solo suñu njaam ndax mbir la mu nga xam ne suñu borom ci la dëkk muy ñàkk a lekk ak ñàkk a naan yutim wala yutaam te du ko wàññi dara pour mu won ñu ne ñun jaam lañ moom borom la mu mosal ñu ci loolu ngir ñu xam suñu tuuti ak suñu torox ak suñu ñàkk sola loolu dina dimbali nit ki ba mu mën a toroxloo ba du rëy ndax nit bu amee alal mi ngi lekk mi ngi naan mi ngi tëdd fu neex mi ngi def lu neex mi yëg yëg ne yëgatiku na daf koy yomb te bu yëgee ne yëgatiku na rek yàlla alak ko yàlla nee na ay aayaam sax dana ko waññi walis ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu nee nay du jubal xolu képp koo xam ne aji rëy la yonentu sax dana wax ne képp koo xam ne lu tol ni pepp dara mi ci sa xol ci rëy yàlla du la recevoir aljanna lanay dimbale nit ki kon mooy toroxlu koor dina la faible loo ci ngir xiif ngir mar ngir yi ngay moytu yëpp ba nga yëg ni nga toroxee te man tawaadaa lillaahi rafaahullah boo torox loo rek yàlla yëgati la nga rëy boo rëyee rek yàlla tuutal la nga torox wala tarayanna fi l ardi dunaka muminan wala kaafiran xata tugayaba fi lqabri fa inn xitaama al amri anka mugayabun wa man laysa daa xusrin yaxaafu min al makri yàlla ka mu ne feeg yaa ngi dund bul gëm ne am nga koo gën nay yéeféer ba nay jullit ndax ku xamul fu mu mujj waraguta def final judgment wolof dafay wax ne kuy xuus ci géej du rekku lab ndax xamul fa mu mujj wolof dina wax ne weeru koor feeg jant sowul juubu weesu wu ca loolay tax doo sañ a xeeb kenn doo sañ a rëy kenn damay gis eh, fii ci Maroc fale ci Sénégal ma gis ñi yalwaan façon yi ñuy yalwaanee wuute ma gis ne fii di gis nit bi ñëw ba ci yow di la langaamu fële it dana am nu muy manière pour nga jox ko mooy yëg ne am na lu wayjur yi war a def te defuñu ko wante ca mujj ga mooy yëgit ne ndeke du lool rekk maanaa suñu ñàkk yërmande ñun ñi war a saraxe ci ñiñ war a sarax xëy na moo yóbboo ñiy saraxu yenn manière yi ñuy def pour ñu mën leen a yërëm yal nañu yàlla may aafiya kii koor war na ko préparer mu xam ne mi ngi jëf-jëf joo xam ne sama borom daf ko askanee boppam ndax wax naa ne jëf la ju nga xam ne ci la dëkk ndax du lekk du naan te ku lekk naan moo la leexal moo la nàndal moo tax bi muy wax jëf yi nim leen di fayee mu ne ku nekk loo def rek daa daañ la ko fay fulal la ko sax ba mu des koor koor moom duñ ko boole ci jëf yi ñuy peser di ko ful mu ne ndax maa ko moomal sama bopp illa sawmu fa innahu li daaf gi nga xam ne yàlla daafal na ko boppam koor jox na koor sharaf bu nga xam ne ëpp na ni mu daafalee boppam subhaanahu wa néeg ba mu jox ko sharaf bu beneen néeg amut ba muy wax seydina ibrahim nanga laabal bayt yi li taifina wal qaimina wa rukai sujud ki jëm ci koor na xam ne mi ngi jëm ci lu nga xam ne protection la pour moom wali safara yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne ma min abdin yasuumu yowman fi sabilillahi illa baacada allahu bi dalika wajhahu min annaari sabina xarifan amul benn jaam buy woor benn bés te yàlla tax lu dul ne yàlla dana soril safara ba mu nekk distance su juróom ñaar fukki nawet ak aju woor ci xam nga safara bu la soree distance boobu doo ci dugg de yonent dana wax ne koor pakk la bi nga xam ne aji woor ji moom lay fege boppam walla safara am na ku ñëw ci moom ne ko maa laa la laaj xanaa dooma tegtal jëf joo xam ne su ma ko defee demal aljanna yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ko alayka bi sawm laa mithla lahu taxool koor maa ngi lay dénk koor amul lu mel ni moom ci lu mën a yóbbu nit aljanna yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax na ci xadis bu sax am na dof ni koor luy jur wér la loo xam ne nag boo ca duggee sori safara boo ca duggee dugga aljanna boo ci nee am wéru xel wéru xol wéru yaram wéru ruux nekk ca nang ca war a ne ngir yooyu nga mën koo am jar naa xam jar naa waajal koor dana tax bakkan bi muy noon bi gën a mag ak seytaane di noon bu mag nga mën leen a not ñu prepare koor xam ne weer la wa nga xam ne ci la constitution jullit bi wàcce on muy alquran di melow yàlla subhaanahu wa mu farale ñu ko ngir ñu baaxalee ci suñu àdduna baaxalee baaxalee ci suñu àllaaxira doy na teraanga weeru koor yàlla wàccee ci téeréem bi chahru unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhudaa wal furqaan faman shahida minkumu shahra falyasumhu alquran jooju wàccoon ci nag jullit bi war a préparer boppam ngir weeru koor nekk weeru alquran ci moom loolu tax nga gis assaxaaba alayhim ridwanullahi tabaraka wa taala ñoom daanuñ xaar sax weeru koor ñëw jamono bu nekk ñu ngi doon jàng alxuraan rawatina nag chaabaan muy baraxlu wii ñu nekk dañ ci daan jàng alxuraan lu baree bari ngir waajale ko weeru koor weeru koor mbokk yi weer la wu nga xam ne yonentu dafa wax ne sallallahu alayhi wa su ñëwee soo borom dafay ubbi bunte aljanna yi su ñëwee sama boroom dafay tëj bunti safara yi su ñëwee sama boroom dafay jëng cheytaane yi waaye kuñ ci jëngal sa seetaane ngel la bu ko jëngi kuñ ci tëjal sa bunti safara ngel la bu ko ubbi kuñ ci ubbil saay aljanna ngel la bu ko tëj weer la wu nga xam ne xew-xew bi gën a mag ci lislaam te lislaam taxawee ci dootul daanooti ba faw muy waqaatu badrin ci la amoon yonentu sallallahu alayhi wa sallam àndut ak lu dul ñetti téeméeri nit ak fukk ñett Quraysh ànd ak mbooloo mu mat junne ñii amuñu dara ñoom jullit yi ci ngàndaay ak i fas ñële am lu nekk yàlla jox leen ci ndam fekk ña nga woor ñun nag yàlla wax ñu ne nañ ko woor te sellalal ko neewuñ sax ci xeex bu dee ñu ci xeex it tuur xeex ab physique kon war naa gën a yomb war nañoo teewlu saxaaba yi nga xam ne ñoo indiloon lislaam ci kàttanul yàlla ndam lu toll nii ci weeru koor naka noonu it événement bi nga xam ne ci la lislam ubbeekoo ba dugg fu nekk mooy not giñ not makka ca fatxu makkata te notee leen jàmm notee leen ngor notee leen mbax leen ubbeeku notee leen baale ak tolérance notee leen ngëneel ci weeru koor yi la amoon atum juróom-ñett gannaaw gàddaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi goo xam ne sama boroom nee na moo gën juróom ñetti fukki at ak nangam laylatul qadri xayrum min alfi junney weer borom bi nee na guddi googoo ko gën guddi googu nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na nañ ko sàkku ci fukki yu mujjee am na sax ñu koy askane yeneeni guddi ala kulli xaalin li wér mooy mi ngi ci fukk yu mujj yi waaye nit ki it na góorgóorlu bu guddi weeru koor yépp nekk guddi laylatul xadri bu ko defee ala fokk dana ko jot wax nañ ne sama borom dafa nëbbu laylatul xadri ci biir guddi yi ngir ñu fonkal ko guddi yépp mu nëbbu jëf ji nga xam ne su la ko nangulee rek texe nga ba faw dootoo texeeti ni nga xamee ne Seydina Ousmane jëf na genn jëf rek yonentu ne dara dootul lorati Ousmane gannaaw tey am na ci jëf yi gu mel noonu waaye yàlla fa ko nëbbu ba euh, euh, nit ki sawar ci bépp jëf bu baax mu jëf ko ngir mu dajeeg jëf jooja mu nëbbu ci bakkaar yi bakkaar bi nga xam ne su ko defee dootuñ ko nangul lara ngir nit ki sàmm ba du def benn ci bàkkaar yi mun na buyi tamit nitam yi ci biir nit ñi ngir nga fonk koo gis rekk jàpp ne waliyo yàlla la mu nëbbu yi tamit waxtu nangu ñaan ci guddi gi ngir guddi gi yépp nga ciy ñaan ci ajjuma ngir ajjuma ji yépp nga ciy ñaan naka noonu jullit bi la war a dundee addunaam fu mu toll rek lu yiw rek mu jëm ko màng weer wii nag nga xam ne ci lañuy ñu wàcce woon alxuraan te sama borom ne wala xad yëssarna alquraan li zikri te ba léegi ci ñun tontooguñu question wu fa hal mu mudakkirin di ko jàng te di ko jëfe te di ca waaroo ndax alquran looloo taxoon wàcc moo tax ku nekk ci ñun war na defal boppam barnaamaj programme calendrier ci koor gi ngir bu fekkee ne mënutoon mu mën su mënoo nit muy jàng alquran lu mën ku mel ni sayduna ashafii rahmatullahi alayhi daan jàng juróom benn fukki kaamil ci weeru koor guddi gu nekk kaamil ba bëccëg gu nekk kaamil bu fekkee ne mënuloo loolu na nga jël sa téléphone léegi nga télécharger application boo xam ne da nga ca jàngee ay aayaat bés bu nekk li ko dalee tey ba ba koor gi di jeex bu koor gi jeexee it li ngay doon def ci koor gi entraînement la nga jéem ko continuer ku nekk ci ñun su fekkee ne da ngay liggéey heure bi ngay am comme lunch time nga waroon a dem añi weeru koor la añ amut na nga wut jëmm jooy dajeel ou ci sa biro walla ci jàkka ja wala fu ngeen mën a daje ngir mu mën laa jàngal lëf ci alquran ba balaa gi jeex nga mën a dimbale sa bopp bu fekkee ni mën nga jàngal sa bopp alxuraan mu dimbale la ci tafsir mu dimbale la ci yi aju ci xam-xami alquran ak xam-xamu diine waaye na wëndeeluwaay bi nekk alquran bu dee sax amuloo koo taseeg ci sa buro walla ci jàkka walla lu moo lumu wutal koo xam ne dana la mën a dimbale online ndax tey sama borom yombal na yépp wax nañ ni lu jara ñaan fekkee ko la waaye buñ ko fekkee it ñaan lañ koy tertoo yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu weeru koor ñëwaan bañ ni weer waa ngële mu ne allahuma ahillahu alayna bil yumni wal imaani wassalaamati wal islaami rabbi wa rabbuka allah ay yàlla ñu ngi lay ñaan weer wi yegsi ak barke yegsi ak ngëm yegsi ak jàmm ak mucc si ak lislaam yow weer wi sama borom te mooy sa borom yàlla la subhaanahu wa du weeru njàqare weeru mbégte la bari na ci ñun rawatina séeréer si bu koor di jublu si rek ñu koy préparer ak njàqare ak tawat tàng naag nangam sàngam waaye yonentu de sallallahu alayhi wa sallam fa daan bu weeru koor yegg si waan danga ko daan gis mu naan jaakum shahru ramadan weeru koor de ñëwal na leen shahru ramadan shahrun mubarakun muy weer wu nga xam ne wuñ barkeel la kataba allahu lakum siyaamahu fiihi yàlla farataal ci yéen woor ko kataballahu lakum siyamahu yàlla farataal ci yen woor ko fiihi tuftahu abwaabul jinaani a ah, mbégte ndax ci la bunt aljana yi di tijjee ko wa tuxlaqu fiihi abwaabul jahimi ci weer wi la ñuy tëjee bunti safara yi ba hadis ji jeex ki nga xam ne ñaan ba yàlla may ko mu fekkee weeru koor mu ñaan yàlla indi weeru koor yi mu takkooñu ci barkeeg ngëm ak lislaam na sant it borom bi subhaanahu wa sant gi mooy jot gi nga xam ne jot nañ ci ñu bari noonu nañ ngeen jot ci ñun ñu jot ci sant giit mooy jëfandikoo ko moom koor gi ca na ko sama borom bëggee subhaanahu wa taala limaamu Ghazali rahmatullah alayhi dana wax ne sant ñetti xaaj la mu ne misaal mi mooy kii dafa bëgg fas buur bi may ko fas kii bëgg fas buur bi may ko fas kii bëgg fas buur bi may ko fas ku njëkk ki bég na ngir ne am na fas buur bee ko ko may wala du buur bee ko ko may moom loolu du problème moom daal fas la bëggoon am na fas bég na mu ne sant na de waaye des na kii sant na ngir li ko ko buur bi may ndax may kala ko may dana tax mu am dayo jum amutoon su dul woon kooku moo la ko may xam nga ne un million bu la sàmba sorabaale bu mel ni man may lu muy bari bari ci yow léeg-léeg da ko gën a fonk da nga gën a fonk cent mille francs bu la président bi woo ba pale mu filmer may gi honoré la ko donte la lee ëpp sax ci montant bi moom ngay gën a jox dayoo ndax ki la ko may kon nag ki sant pas parce que dafa am fas waaye jóge gim jógee ci buur bi moo tax mu kontaan ci cant googit gën naa kawe cantu kële waaye ki sant dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne duwul ne fas wi la sant am gim ko am rek duwul ne jóge gim jóge ci buur bi rekk la kontaan waaye li tax mu kontaan mooy fas wi ko buur bi jox service bi mu ci mën a doxal buur bi buur bi jox na ko fas wum ko mën a doxalee service mën gi mën a doxal buur bi service ci may gi moom looloo ko kontaan loo kon nag koor gi ñu kontaan ci ngir service yiñ ci mën a doxal buur bi bu doon dana ko jëriñ sax war na ndax jox gim ñu ko jox waaye ndekete yoo du ko jëriñ ndax moom ganiyun anil alamin njëriñ li ci ñun lay dellu moo tax nitu yàlla ka bam ne jazallahu xayral alamina jazallahu muhammadan mu ne fa yaa layta shi'ri ma aruhu li ahmada mu ne maa ngi ñaan yàlla mu fay yiw gën ji mbindeef yi kii yonent sallallahu mu ne ah man maa waane rek aka neexoon ma xam lan lay sàkkootil lan lay sàkkooti ñeel yonentu sallallahu alayhi wa ana lu yonent bi amut ba ma ko koy sàkkul yiw wu yàlla rek may na ko yonent bi ba noppi kon lu tax ma ko koy sàkkul li tax ñu ko koy sàkkul ci ñun lay dellu balu thanks boo ko dóoree ci miir yow la jëm si moo li ngay def muy julli ci yonent yow lay dellu waaye mbaax yi ngay def yépp ngir sa borom kontaan njëriñ la ci yow lay dellu ndax sa borom moom subhaanahu wa taala ganiyun anil alamin wa huwa al ganiyu al ya ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa al ganiyu al hamidu bokk na ci yiñ koy sante fexe ba jéemam màng waxtu yi ci koor yépp lu nekk rek la ci yàlla ci mbaax ñu def ko ñu am dogu gu mot sëkk ni weeru koor wi dinaa ci def loo xam ne mosuma koo def ci weeru koor yi jiitu ngir ne sama borom moo ma ko jox fokk ma doxal ko ci service yi mu bëgg ma doxal ko ci wolof sax wax na ne bul abal bët fi mu bëgg ngay xool xanaa fi mu bëgg nga war a xool waaw ndax sama borom du la forcer ndax yaa ngi ci xitaabul xikma bu doon xitaabul machia doo ci mën dara waaw doo ci mën dara di nga toll foo xam ne fokk nga nelaw boo bëggoon a xoolee dara nga ci dul mën ndax xitaabul machia la noy mënuloo ko téye ndax xitaabul machia la fokk nga nooyi walla nga faatu waaye xitaabul xikma mooy axkaam taklifiya yépp nag yal nañu yàlla dimbale ba ñu bokk ci ñi nga xam ne lim ci bëgg lañ ciy def bokk na ci niñ koy préparer it waaye fexe ba xamlu atte yi aju ci koor ak atte aju ci weeru koor moo xam farata yi la te farataay koor jafewul a xam ñaar la bu njëkk bi mooy al imsaaku maanaam bu njëkk bi mooy al niyatu ñaareel bi mooy al imsaaku yéene ak jàpp yéene koor ak jàpp walis lekk jàpp walis naan jàpp walis sëy waaye yéene it mbaax yi koor am yépp nga fexe ba jot ca yéene ba jëf yi baax yi ñu war a def ci koor yépp nga def ko waaye nga jàpp wit walis mbóosóor walis jëf ju bon walis wax ju bon walis xalaat ju bon walis lu dul yàlla subhanahu wa koorit wara nekk jamono ju nga xam ne suñu jaaruwaayu deret yi jaaruwaayu ñam yi jaaruwaayu ndox yi dafay féex du fees te yooyu bu feesee dafay tax xalaatukaay bi fat waaye bu féexee dafay tax xalaatukaay bi ubbeekoo nga mën a wéetal sa bopp nga mën a wéet sa bopp xisaab ko balaañ laa xisaab la Seydina Omar waxoon na xisaab seen bopp balaa bés di ñëw ñu leen di xisaab eh, weeru koor dana bokk ci yiñ koy dundale mooy fexe bay dimbale ñi woor luñ dogee ndax koo dog dogloo rek ci kooram koo jox lu mu dogee daa am lu toll ni la mu am ci kooram te du wàññi ca la mu war a am moom dara moo tax lu mëta euh, bàyyi xel la mu mel nii tamit bokk na ci yi ñuy dundalee weeru koor bañ nelaw guddi ya waaye di ca jaamu yàlla subhaanahu wa taala kemtalaayu sa kattan yonentu dana wax ne man saama ramadaana imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi ku woor weeru koor ngir gëm yàlla ak fàggu yiw yàlla baal ko lum defoon waaye noonu la waxee man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi ku julli ci guddi weeru koor ngir gëm ak fàggu yiw yàlla yàlla dana ko baal lum jiitaloon kon loolu ñuy tuddee taraawix jar na bàyyi xel li la ciy dimbale nag mooy boo dogee nga bañ ko def ndogu séeréer lekk tuuti rek ngir nga mën a dundal guddi gi waaye am na loo xam ne soo ko lekkee boo moytuwul nelaw rek ngay mën a def doo ci mën a teg lu bari su ko defee julli yooyu ñuy julli ci biir weeru koor dafa ñuy jàngal julli ci bu weeru koor weesu maanaam yu baax yi ngay def ci koor yépp mi ngi lay entraîné ngir nga mën a def ci yu baax yooyu aslëf gannaaw weeru koor gis nga koor yi dagan sax yaa ngi ci fegu walis def leen lekk dafa daganoon ñu la ko tere nga mën koo bàyyi naan dafa daganoon ñu ngi la ko tere nga mën koo bàyyi sëy ak sa soxna sëy ak sa jëkkër ci bëccëgu weeru koor dafa daganoon ñu ngi la ko tere yaa ngi ko bàyyi mën nga ko def loolu lim ñu jàngal mooy ndegam yi baax yi dagan lañ mën a ba sàkkaa yi xaraam lim ñuy jàngal mooy lépp luñ wax ne dañ ko miin ba mënuñu ko bàyyi rek dañuy wax lu ñu neex suñ ko bëggee bàyyi bàyyi ko kiy tux su ne bëgg naa bàyyi waaye mënuma bàyyi weeru ko donc naan ko aha ah, bàyyi nga lekk ak naan gi nga xam ne bés bu set ci nga dëkk pendant onze mois boo ko mënee bàyyi mën nga bàyyi cigarette yow mi jëfandikoo alcool soo mënee bàyyi lekk naan pendant un mois te mu daganoon nga koy def pendant onze mois war ngaa mën a bàyyi sàngara kii def njaalaw kii def bàkkaar bu moo bu mu yàlla ñu yàlla boole musal ci bàkkaar yépp weeru koor naan la hey gannaaw li dagan moom nga mën a ba te nga miin ko ba nga foog ne mënul ko woon a ba war ngaa mën a bàyyi bon li xaraam te di la jural sànjum yàlla fii ci àdduna ak ci àllaaxira weeru koor kon école la lépp loo xam ne yaa ngi ko doon bàyyi ci mbaax def ko loo daan def ci safaan ba ko danga daan sàgganee julli weeru koor lay wax ne hey bul wax ne man daal bëgg naa di julli waaye damay tayal damay nanga boo ca defee yitte rek sama borom defal la ci tawfiq ndax mënuma ko ci yi nga war a def walla mënuma ko ba ci yi nga war a ba sosal yàlla la mooy yaa ngi naan sama borom teg nga ma lu ma attanul te sama borom wax na ci alxuraan ne moom du teg kenn lu ma attanul laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha weeru koorit weer wu ñuy jàngal tabe la ndax yaa ngi bañ a lekk yaa ngi bañ a naan dina tax nga yëg miskin yi nga xam ne duñ lekk duñu naan pas parce que dañoo bañ a lekk wala dañoo bañ a naan mais parce que dañ koo amut su ko defee dina def ci yow yërmande ngir ne yëg nga ñoom li ñuy yëg ndax nga mën a partager li nga am weeru tabe la yonentu sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci exemple bi gën a mag ndax weeru kor wuy tax nga xiif mar ba mën a partager ak ñële ñuy daj daf ci dajeeg alxuraan miñ ci wàccee nga xam ne biwam yépp mooy jëriñ ñeneen ñi te wax nañ ne ki gën a bég ci àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi dimbale ñeneen ñi yonentu sax dana wax ne yàllaa ngi ci ndimbalu jaam bi feeg jaam bi mi ngi ci ndimbalu mbokkam alquran dimbalee nit moo ko tax a jóg weeru koor noonu nga boole ñaar yépp mu def ci yow tabe ni nga xamee ne yonentu sallallahu alayhi wane na ko abdullah ibnu abbas yal nañu yàlla fayal yal na yàlla fayal ñu ko moog baayam dana wax ne yonentu sallallahu alayhi moo gënoon a tabe ci li yàlla bind kaana kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwad annaas wa kaana ajwad ma yakun fi ramadana xiina yalqaahu jibrilu fa yudaarisuhu alquran tabeem kenn dabu ko waaye li muy tabe tabe tabe gën a tabe ñépp boo comparé tabeem ci weeru koor ak ci lu dul weeru koor tabeem ci weeru koor dafa meloon ni ngelaw cal weer wala tempête boo nga xam ne lu mu romb rek ne ko waaw daf daan joxe joxe gu amul àpp lu tax parce que jibril daf ci daan dajeek moom di jàngalanteek moom alquran waaw di jàngalanteek moom alquran kon nag ki jàng alquran te tabewut war na seetaat boppam kii woor weeru koor te tabewut war na seetaat boppam mbokk na ci yi ñu xaar jullit bi mu def ko ci biir koor mooy lu ñu tuddee li atikaaf rawatina fukki fan yi nga xam ne ñoo mucc soo mënta def fukki fan yépp nga seet la nga ca mën nga def ko yonentu sallallahu alayhi wasallam at mi mujj a dund ñaar fukki fan la def li atikaaf wax nañ leen ci njëlbeen gi ne bokk na ci yàlla jegleel koor wàccee gim ci wàccee alxuraan moo tax jullit bi dëgg-dëgg xaalam ak alxuraan ci weeru koor du mën a bokk ak xaalam ak alxuraan ci yeneen weer yi moo tax dañ ko gis mu ngi ci wàccee ay kaamil fekk loolu jaadu danga ko gis mu cey nafar ngir lam mokkalut tam fët mu mokalaat ko wala lim mokalaguloon woon mu mokkal ko naka noonu muy wut yiw ca yàlla subhaanahu wa ci jàng gim koy jàng ak nafar gim koy nafar ak jàngale gim koy jàngale doy na rek jàngal ci jàngal euh, doy na ngëneel jàng alquran boole gi muy boole aji jàng ji ca asafara al barara mooy malaaka yu tedd yooyu le ki nga xam ne nag mokkal na ko wala fu mu toll muñ ko daan jàng yodoon dana wax ne bu yomal xiyaamee dañ naan ko rek yéegal rek ci aljanna kem talaayu nanga daan defee tartil ci àdduna bokk na ci yi ngay xàmmee jullit bi ci weeru koor diggante mook alxuraan mooy góorgóorlu gi muy góorgóorlu ngir jikko yi alxuraan tagg yépp mu jikko woo ko <coughs> alhamdulilah teggin yi alxuraan tudd yépp mu teggina ko ngir roy yonent bi nga xam ne moo doon jëmme alxuraan juy dox yonentu sallallahu alayhi wa dañu laaj nday Aïcha lana lana doon jikkoom mu ne kaana xuluquhul quran jikko yonentu sallallahu alayhi wa moo doon alquran boo bëggee gis alquran ci téere ubbil sa kaamil waaye njàngale alquran yépp nga bëgg ko gis ci jëmm juy dox xool yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi jullit biit noonu la wara mel ci jéem a tegginu ci teggini alxuraan yi jikkoo jikkoo alxuraan yi meloo meloo alxuraan yi lu alxuraan tagg rek mu ne ca lu alxuraan ŋàññi rek mu bako ñu ngi ñaan suñu borom mu dimbale ñu dimbale leen bañ jot ci weeru koor te woor ko ni nga xamee ne noonu la ko suñu borom bëggee ñu koy ñaanit mu ñu ko ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu tabaraka wa taala alayh wa ala alihi nga xam ne moo doon alxuraan ju daan dox jikkoo jikkoo saxaaba yi nga xam ne seen làmmiñ mos sa dagg walis alxuraan seen jëfandiku it mos sa dagg walis njàngaley alxuraan yàlla defal ñu ko defal ñu tamit ñu jëriñoo barke barab yi nga xam ne ñoom lañ nekk muy barab yi Cheikh na Sidi Ahmed Tijaani qaddasallahu sirrahu nga xam ne ñu ngi fii ci dëkkam bépp barab bépp barke boo xam ne fekk na ko fi yàlla nañ ci jëriñu yàlla nañ ci am cër ya ca gën a mët gën ca mag bés yi yëpp ñu nekk ak moom muy ay bési yàlla watil ka euh, naka lañ ko waxeeti suñu borom wax ko wa zakirhum bi ayaamillah wa zakirhum koo xam ne nag ndongo Cheikh na Tijaani nga xam nga moom weeru kooram moom addunaam yëpp weeru kooram la woon jamonoom yëpp laylatul qadri la woon yal nañu yàlla boole ci dëggi-dëggi eh, àndandoom ñuy ñaan eh, ñi fi ñëw ziar ak ñi bëgg ñëw te mënuñoo ñëw yépp yàlla xëpp leen barke Cheikh na Tijaan yi ñuy sant bu baax mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ci yaatal gi ci eh, taxaw yi ci lépp rek rawatina al xalifa Sidi Mahamadul Kabir xam ne démb rek mu ngi ñu invité ca euh, ferme moom ñu añaw ndoog moom euh, waxtaana ndoog moom ak waa xadaraam ñuy sant bu baax ci loolu di ñaan suñu borom euh, dëgëral ko ñaan suñu borom bépp yiw wumo wumu mu xëpp ko umma bi ndax soxla na ko koy ñaanit ci barke weeru koor yi xat-xat yi xeet wi ne mu dindi ko euh, jàmmal ñu euh, defaral ñu suñuy euh, zaahir ak suñuy baatin ba nooni lislaam ñooñ lislam not leen waaye dimbale ba dimbale ñooñ lislaam ba ñu delluwaat ca façon yonentu sallallahu alayhi wa ndax façon boobu rekk mooy dox wa dalika alayhi bi aziz sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana an alhamdulillahi